nga juddu ni nga juddoo mage ni nga mage jëfe ni nga jëfe docteur nan ko bàyyi xel yaayam doo doon dimbali jaam ñee Tout Saint-Louis responsable politique ci commune Sangalkam di itam président alliance pour le développement de Sangalkam di wéyal ca càmpum comité mouvement boobale ba tey ca commune central ga nga xamante ni bi xam ngeen di demoon fa fan yëleenu génn yeneen kuréeli soxna woowaat nañu ko moom docteur Saint-Louis ngir ànd ak moom ca liggéey bu am solo boobu mbooloo mu takko takko nak togon di ko xaar soxna nak sen kaddu genn la wax nañu dal ne ne ko jàppale moom docteur Salihou Keita ndax nag yëg ak jàppale gii nga xamante ne bii moom la nekkeek askan wa ñu déglu seen i kàddu. dara jëf Salif lay wayal moo baax moo gore gami baange na judd gërëy dara jëf Salif moo gore yaa baax yaa gore gami baange suñu koñ nag dañoo nekk koñ boo xam ne dañoo déggoo lii nag du tey am na ñu fi jaaroon benn yoon mais ba nga xamee ne gisuñu lu xam dañoo reculer ba ñu gisulee lu ñu xam dañoo reculer ñii ñëpp ñu ngi ni toog dañ daan gaare fii kaar dem wuy ji waaye ba ñu dee gaare kaar dem di wuy ji gisatuñu lu ñu xam kenn ku nekk da toog sa kër jàpp sa njàmbur ñu bëgg nag jàppale DG loo xam ne ci dëgg lay doon ñu naxante duñu waxante duñu waxante lu dul noonu duñu warante ci dëgg rek la ñuy dox te ku ma jàpp sama waa mbootaay dañ ko jàpp ndax maa ngi ñoom benn lañ amuñu xaaj amuñu seen kon nag ñu ngi lay ñaanal li nga yóotu yàlla nga ko jot loolu rek lañ lay ñaanal. deuxième yi nag ma la andil benn góor la garmi la parce que Seydina mu ngi dëkk fii man mosuma ànd ak kenn sama buntu kër laa daan toog bu kaar yi génn ma animé dem sama yoon lu tax Fat Fay ma ne leen sama jëkkër nee na bu ma politique mais bi ma ko wanee Saliou Kayta fotoom mu ne ma kii na ma man duma anda ak ko xamne ne amul kilifa Saliou Keita amna kilifa man amna kilifa yewit am nga kilifa mbeen kon li ñuy sumbando yalla na sunu borom jàppale ñu si kàttanu sunu borom eh, salu kayta lama la waxon sama ke la lay waxat man doomu séeréer la di gor pire di buur sur ko mando feen moy sama mam ma dekk sin suma rek na mais Salif jàpp la muy guddi muy naaj heure boo ma soxlaa boo nekka rek dina ñëw wax ak samay nit. DG yow si dëgg nga nekk yow ku la bëgg xam ne dëgg nga nekk ku la bañ xam ne dëgg nga nekk koñ bii nag xam naa sore nag sama kër waaye am naa fi ay nit de sama yaay ngi nii mère Basel ñii fi nekk samay doom waa kër DG yaa ngi ne la toog samay doom lañ dañuy ñëw sama kër toujours su ma ñëw fii fekk leen sama xel day. ñun gëm la ñuy politiquer génnee carte bis jot nga taxawal sa kart ànd ak ki nga àndal fal ko loolu la ñuy gëm waaye sabaru musique taxu ñoo jóg dañoo dépassé docteur Saliou Keita gërëm leen sant leen te ñaan nag moom yàlla subhaanahu wa taala yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ne nag lépp lu mu man ci jàppale soxna yooyu incha allahu rabbi dana ko def ñu déglu docteur Saliou Keita jërëjëf ndax accueil bi rafet na soxla ma mu bàyyi soxlaw ma ko ndaxte li ngeen wane nii rek dangeen ma sas te ku ñu sas nag mën nañ la kon soxna yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax tey laa jàkkarloo ak yéen tey muy guléet ñu gisee tey buñ fi ñëwee joxleen leen carte boobu day wane ni bés ki ni tey man ak yéen benn lañu benn lañu si taxawaay bu bees bi nga xam ne am naa ko mooy yàgg ànd ak président Macky Sall waaye tey moom dem na jeexal na samay moroom ñoo fi ne jamono yi samay moroom ñoo fi ne maa naa tëggal sama tama bopp wut naa tama ji ba teg ñi ma ko war a tëggal mooy askanu Sénégal ñi ko war a tëgg d'abord mooy ñi ma dëkkal moo tax ma ne yéen waa Sangalkam génn leen tëggal leen ma tama bi Sénégal dégg ko ñu fecc ko kañ lañ koy fecc bés boo xam ne ni sénégalais nangu nañu ba dénk ñu ay responsabilité mais ñi ñuy dénk responsabilité lañ la ñu ëppale Saliou Koyta ba may politique en quatre vingt 96 Ousmane Sonko politigul ba may politique en quatre vingt 96 Jomaay politigul waaye yàlla mooy joxe tey Jomaay président de la république nañ ko ñaanal jàmm waaye nu ma la bëgg bëgg bëgg duma bañ sama bopp xaw ma nu ñu koy waxee kon mooy soxna yi mooy que dama am sama mouvement pour la neexee nga nu wax sama parti bopp Macky Sall jàngal na ma mën naa ko te dinaa ko tari waaye foog classe bi ñu koy tere mu am ay élèves mu am ay table banc te élèves ak table banc fii lañ ko bëgg a jëlee d'abord fii si Sangalkam ñu alliance pour le développement du Sénégal waaye alliance moy ñepp nañ ñëw japp ci waaye balaa nit ñi di joggé fenen di japp si ñi ko dekkal nañ ci japp ba pare kon dama ñëw seet si leen ngeen ken japp si bo leen ci jappé ba pare ñu fexé ba ligéyal suñu gox bi bu nawété commencé na tay nañu wax ni ñun ma di leen seet ci mi ngi taw lolu señ bu am solo la waaye di leen wax rek Euh, Saliou Keita ginnaaw bu ma jàppee ni war naa liggéeyal senegal il faut ma liggéeyal sama gox ba pare sénégalais yi mënuñu wax ni da baax te ñi nga dëkkal waxuñu ko mënoo liggéeyal Sénégal te liggéeyaloo sa gox ba pare kon liñ fi wax yépp rafet na kon tey pacte lañ bëgg a def je ne suis pas dans une logique de positionnement non non non non engagement citoyen quels sont les défis réels auxquels les populations de Sangalkam sont confrontées Nous fexe ba relever ko mais Sangalkam y a beaucoup de défis la pauvreté explose ici à Sangalkam mais Barina, mais l'eau, yep, am yo yoo état central mo koy lijeenti mais am yo yoo tamit c'est la commune qui doit gérer ça ce sont des compétences transférées mais duma man du ministre man du ma maire mais xamna administration Sénégal maîtriser naa ko ndaxte nek na directeur général pendant 7 ans nek na secrétaire général nek na d'autres postes dans l'administration kon xamna administration nu muy doxé fan la wara a faire pour indi ay opportunités fi suñu gox mën ko te fan ko ci au niveau national comme au niveau international waaye lolu tollu guñu fa mais xam nous avons suñu parti bop am suñu mouvement tay wa sangal kam ngeen jog may bu leader de parti fini tok di wax di nas dama fay tok mo gën ngay top nit mu nek sa leaderu parti mom moy dem lijeenti il faut exécuter hein. on n'est plus dans ça kon Ben. Euh, tay dama ñëw juste pour jox leen sen carte waye duma def luma xamul duma def luma mënul kuma wax aussi lo xamné ne ko je te dis carrément je peux pas man je ne prends jamais d'engagement. engagement duma ko jël fenn te duma defal kenn promesse aussi duma fi wax dem ñu ne Saliou Koité fenn rek mo fi waxoon li def wax na ko waaye defu ko def kon nak nañ ko jappé nonu motax buñ ma xolé nous politicien nañu jappanté yalla tax tay soxna yi tok man vos difficultés xam parce que j'ai été chef de division chargé de la promotion et de la professionnalisation de la microfinance xex ndol fils ci Sénégal bokuna ci ñi nga xamné ni ñoo bind la lettre de politique sectorielle de la microfinance il faut que dans la localité nous liggéey pour la promotion de l'autonomisation de la femme l'entrepreneuriat des jeunes moi j'ai été secrétaire général de l'ANPEJ pendant 7 ans pour vous dire nous ah, ñun dé xam nañ taxaway bu ñu am ñu ñu dem jëli affaire yi ñoo jox ko rek donc nous euh, ni ADS ngeen bokk bu leen ADS mooy lal alliance pour le développement du Sénégal mais pour le moment ñun on parle de ADS alliance pour le développement de Sangalkam balaa ngaa Né Sénégal waxal sa gox ba pare bu gox bi ñëwee nag ba ñu gis ni euh, comité yi bari nañu ñu bari ñu ngi siy jàpp waa Tëngéej ñu ngi may xaar Kër ñu ngi may xaar. région yi ñu ngi ñuy xaar bitim réew ñu ngi ñuy xaar te Sénégal yi dinañ ci teg bët asalaamaaleykum wa rahmatulah. Saloum international. sa liggéey rafet kayita. ñun de gërëm nañu la fi réew. Dakar Ndiaye Sénégal Ndiaye. Dakar Diallo Diop. yaay sunu kayita. waaye naa lool. xoolal def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen. ngeen ko def fut ni ko yàlla def mu jaaxal leen yaayam du ko gërëm baayam du ko gërëm sa doom du ndayam gërëm sa biir kër ga kenn du ko yërëm xoolal jëlal foobal nangul jaay naa ko fayal sa di na sa ji man duma si doyal ne ko loola tax ma woyal ñaga jaayu leen ma way jeey daru cubu jaayu leen

ci yoon wi nga xamante bi moom la dégmal ñu déglu seeni kàddu daal fii ñu ne nii nañ fi gis nañ fi lu ne nag dund nañ fi lu ne euh, ndax ku ne jaar na fi te ku fi jaar tamit diggéey kese nga ñuy dig da nga fi wax dal ba sa ñeex saf yàpp te doo rey dara dem sa yoon maanaam nag jamono dafa toll foo xam ne liñ naan ku muus ren dañ laa naxoon daaw suñ dëkkee ci di nax dana dem ba ben instant ku la romb sax da nga na du waaye DG moom yàgg nañoo dégg turam di dégg lu lu baax lu muy def kon nag bu ne tey ñun la seet si bëgg a liggéey ñun dañ ciy kontaan lool te fas yéene jàppanteek moom fasanteeg moom kóllëre ñun moom mel nañ noo xamante ne kenn bu na la woon waaw rek jàppal ni ñëpp nañ la waaw loolu moom yàlla def na ko ci ñun am nañ ci yow yaakaar fas na yéene nag tamit jàppale la foo ñu woow muy guddi muy bëccëg bu soobee yàlla boo gëstoo dañuy gis sa ginnaaw ndax ñun moom bu ne waaw rek waaw la bu neexee yàlla looy woote di ko def buñ ko yëgee dana ñëw participer foo nekk danañ la fa fekk bu neexee yàlla di ñaan yàlla rek li nga sumb yàlla na la ko yàlla yeggaleel yàlla na nga yeggale sa sago dem ba nekk président de la république bu boobaa yaakaar naa ñu duñ ko réccu ndax ne nañ kuy raam di la bokk bis bu amee woto dugalaale la ci kon nag dee sañu sa gannaaw dafa am lu ma la jàpp si kàddu bi nga waxoon samedi bi passé dugoo kenn te li nga wax mooy dëgg bëgguma kuy digge waay ndax dañu sonna si naq yi gisa fii ku ne woon nañ dañu gis suñuy jeune bu ñëwee jeunes yi dañuy génn maire yi génn paa yi génn suñu imaam yi génn waaye du mujj fen dañuy wax dem dañuy wax rek te dem waaye nag li nga waxoon samedi moo tax dama la fonk dama la bëgg su ma la jàppe woon benn jàppee naa la ndax sa wax danga ko ba pare ma dem ba sama kër xalaat ndax man bëggu moom ku ma dig ndax man kenn ma dig te ma fen waaye ku naan dinaa def lii dinaa def lii bàyyil mu dem man fii lu ne gis nañ ko fi. déjà xam nga la laa bëgg ñun buñ na waaw waaw la ñu na déet déen ni ko soxna Awa Dia waxee kenn bu jàppee ñëpp jàpp nañ buñ na déet nag ñun ñëpp dem nee nañ digat fi nekk koo woo muy la ñun bu dul daal jàpp nañ jeey na ba bii ndax ku nangu ku ñu déggal xale bu gore te bëgg nag li muy def chaque jour da daan wax say wax ma di ko dégg kon nag day dama ne jay na ma mi bu jàppee fu mu yeewoo ñun ñu yeewoo fa ak suñu jeunes yi fu ñu leen woo ñu dama bëgg a après tamit nga wax ak suñuy jeunes yi nga xam ñun am kenn ku dul jeune suñuy am nañ suñuy jeune am nañ suñuy imam am nañ suñu te ku nekk fu ñu la woo nga sama waa ji mooy jàmbaar dégg ngeen li leen wax du ma dig kenn dara digul kenn dara dafa yéene li ma bëgg bu ko amee defar ko dafa mbëkk bëgg a njëkk defar commune am mooy dëkk bi mu dëkk muy commune Sangalkam Kounoune central ñëpp mu jàppaleen kenn ku nekk looy jooy dootoo ko jooy te looloo ko tax a jóg mais neewul Khady dama lay dig lii jay na ba dama lay dig lii du deful loolu de. ñii nag suñuy yaay lañu fu ñu dem lañu topp seen ginnaaw mu neex ñu ñu naka ñoom lañu am ku amul kilifa jinne doon sa kilifa ñun suñu kilifa lañu am xeebu ñu leen lu ñu def aussi dañuy ànd ak ñoom li tax ma teew fi man kese ànd ak sama frère bàyyi boy, woowu ma leen parce que ñun acteur de politique y' a beaucoup de gens yoo xam ne ñëw nañ ci quartier bi wax nañu wax nañu sans suite tey quand on va du concret su ma waxee booy nañ génn duñu xaj fii fii lañ lay yóbbu ci grand place su boobaa yow sa bopp di nga gis boo defoon benn promesse man nee laay toog damay dem fubali mais comme que déggoo dara on a bonne foi kon xam nañ ne yow tey jii amaana bu la suñu bo maye cent francs di ko bokk ak ñi ak yow kon tey lépp loo ci mënta dox rek xam nga ñu ngi sa ginnaaw daal. jàppal ma jàpp tax mi avancé mais mu jàpp doo jàpp wala yow nga jàpp du jàpp amul man kii xawma ko ci réseau sociaux laa ko xamoon ma dem taxaw placeu nit di ko tudd nit ki bàyyi ma ba ma dem mu ñëw place am mu oolu ma ba ma ñëw damaa ñëw gis ko rek tiit ba ma paree ma ne ko lan ma def mu ne ma no danga ne da ko naw nga ne bàyyi nga politique ça fait des années man topp ma kenn mais kii dama ko naw ma ne man de su ma naree topp nit kii lay doon mu bàyyi ba mu ba mu ñëw place am mu ooma ma ñëw jour boobu laa ko gis. kon mooy man yàgg naa politique xanaa def naa lu ne ci politique mais dama mujj toog parce que li ma ci gisoon la naxaate bi ngeen wax fii aka moo ci bari mais kii ba ma ko xamee ba tey jàddaguma koñ bu may dégg ñu naan dafa naxe fii ma taxaw nii tey sama jabaru frère bu ma bokkal ndey ak baay mooy takk jabar mais damaa bàyyi nit ñi suñu kër ma ñëw ndax moom. bañ ma ooyee ne ma da fii ñëw ma ne dinaa ko topp kon xam nga du ay caaxaan laa ko toppee seen kii bu ngeen ko jàppee du ngeen ko rëccu te li ma leen wax boo leen ci toppee di ngeen avancé dañuy ànd di daw ngeen jàpp mu jàpp ba ñu am lu ñu war a am incha allah rabbi gannaaw kàddu yooyu nag docteur Saliou Keita feddal la moom itam taxaw temm gu mu fas yéene taxaw ba seen yaakaar ci moom du mas sa tas mukk ci kàttanu yàlla ak yërmandeem ñu déglu docteur Saliou Keita du ñu wax lu ñu gëmul wax lu ñu mënul parce que xam naa ni réew mii àddina bii kenn moo fi nekk mooy kun fa yàkkun yàlla dong mooy dogal lom propose Dieu dispose man dinaa leen defal lu ma wóor ni dina nekk yàlla rek moo xam kon dinaa leen déglu li ngeen wax ma ne leen dégg naa leen ma bàyyi ko ci loxo yàlla nag yàlla bu ko matalee nag ma def ko man du ma dig je ne prends aucun engagement et je ne fais aucune promesse waaye yéen ak man dañu bokk lu am solo mooy gox bi ku nekk da nga jóge sa gox ñëw dëkk si fii tey waaye problème yi gis nañ ko kenn du jóge nag quartier am ñëw di ñu ko defaral ñun ñoo ko war inondation bu commencé mu taw bi commencé li nga lay samay xarit samay mag samay jigen ñoo fi après neuf mois ñu wara accoucher yi ko cinq heures du matin man ma ne dina dem ja le tour du quartier pour jigenu sangal kam yenu di daw di genn di lijeenti pour indi kenn du sangal kam li nga ni dund xam naa ko waaye du ministre tay suma nekkon ministre transport wallahi ma lijeenti yon bi mu gaaw waye ministre lolou état central la

rapport de force la politik mbooloo la ku la ëpp mbooloo ëpp la doole waaye doole jooju mbooloo bi la ko jox fexeel ba li ngay lijjanti nga ñëw tekk sa loxo man su fekkee ni dinaa lijjanti ji ba am jox ko sama njaboot bàyyi leen yàlla bu ma dara gis nga ku la nekkal si naaj bi nekkal ko si ker gi gox bi nag yàlla moo ñu fi wamat ñu koy sant yàlla bu baax gox bii man dama fatte sama bop diko jaayante Mohamed ASC gox Daw, dama lacc ñu ne y'a 23 trois ASC ASC bu nek solal na la ASC bu nek jox na la enveloppe je ne suis pas le maire de Sangalkam mais dama ne fi la deuk suma yalla par la force dama ko wara jox nit ñi waye dafa am ñu bari aussi dina tok ak ñom ñu japp ma ni politiciens yi jamono yi dara xewul election jeexna na politiciens yëpp ñu ngi toog xamuñu leen sax ni ngi dund waye bu dara xewé nga gis leen ak auto ya caravane yi ken xamut waaye Saliou Keita tay ak ñima ma dañu né jotna jaar-jaaru Saliou Keita xam-xam bima am ci administration Jotna ma wut sama yeufu bop kon dama ne suñu yeufu bop la ñun ñu alliance bu wax alliance pour le développement du Sénégal ADS alliance pour le développement du Sénégal N'ak, ñepp la ñu woo doomu Sangalkam doomu Tëngéej doomu Kër Massar doomu Pikine doomu doomu ndakaaru doomu Kaolack doomu Ziguinchor doomu région yëpp doomu diaspora yëpp koo xam ne sénégalais nga waaye dañu ne balaa ngaa defar Sénégal defaral sa gox ba pare sénégalais yi balaa ñu naan Saliou Keita da nga baax waa Sangalkam nañ ko wax ba pare léegi ñu ne es bi nag balaa ñu ne alliance pour le développement bi Sénégal nañu wax alliance pour le développement de Sangalkam mm-hmm. le S est dynamique nañu développer suñu Sangalkam nañu joxante loxo xam ni man de xam naa ni réew mii dara jomm ma réew mii dara jomm waaye lii nga xam ne ni dañ koy joxe jinne yi yoruñu ko yàllaa ko yore seen loxo yii la koy jaarale looloo tax tey ñu ñëw seet si leen waxtaan ak yéen ne leen jër leen suñu carte ngeen adhéré bés ki ni tey ñu taxaw si gox bi ñu ànd ànd nawle yàlla subhaanahu wa taala de mooy dimbalee te itam yàlla bu yàlla tas yaakaar yaakaari askan woowu ci Saliou Keita waaye itam yaakaaru docteur Saliou Keita ci àndandoom yooyu la docteur Saliou Keita nag di jox dig daje ñi nga xamante ni bi ñoo koy safoo ci yeneen campum yeneeni comité fan yi nga xamante ni bi moom la ñu dëgmal incha allahu rabbi